salaamaaleykum gars yi nuyu naa leen daleen ak jaamu ci Sen Sport 221 Sénégal xam na adversaire am ci quart de finalu CHAN bi jamono bile xam nañu équipe yi nga xam ne yëpp jàll nañu Sénégal nag mu ngi war a am Mauritanie suñu dëkkandoo yi kon foofu derby lay doon mu war a doon match boo xam ne ñu ngi ko war a joué ci lii di ajuma bi ñu dëkkmal voilà bu 19h jotee ci la Sénégal di joué jongante googu digganteem ak Mauritanie Mauritanie nag équipe la boo xam ne bu am solo la ndax gis nañu ni ñuy footballé ci li nga ne mooy CHAN neexu ñoo ñëme voilà kon ñoom ñoo dal di génnee ñi nga xam ne ñoo di waa Mali jamono bi Sénégal ak Mauritanie day doon bu ñu xoolee nag li nga xam ne mooy équipe yi jàll yëpp jamono bi nii lay demee voilà ci vendredi bi la ñuy li nga xamante ni mooy a joué bu ñeent waxtu équipe yi nga xam ne des ci li nga xamante ni mooy dégg nga chan bi la ajuma ak samedi la ñuy joué quart de finale yi gannaaw loolu nag danañ wax ci transfert transfert officiel nag ki nga xam ne mooy Famara Diédhiou xam ngeen ne la boo xam ne ni ki daaw la fa dal di wàcc ci li nga xam ne mooy deuxième division bu Espagne te di defi pexe ngir yéegaat ci li nga xam ne mooy première division bi Granada googule day ñoom la abal ki nga xam ne mooy Famara Diédhiou voilà mu nekk ancien équipe ki nga xam ne mooy Pape Konate nekkoon na fa voilà ñu gis ne bu yàggul dara rek ki nga xam ne mooy Alpha Junku bi mu jógee Manchester City foofu la dal di dem balaa muy dem foofu di eh, signé ak Barcelone kon club la boo xamante ni mën nañu wax ne sénégalais yi yàgg nañu fa jaar ñaar jàpp ñetti sénégalais jaar nañu fa avant kii di Famara Diédhiou kon foofu lay nekk ba saison bi dal di jeex bu ñu fàttale ko nag bi mu jógee ci coupe du bi ba léegi moom joué ak équipe boobu di Alanya Sport balaa wax ne daanaka li mu joué yëpp ba ñu koy xeema ci benn jogante lay toll doon am avant ñu doon dem ci mondial bi kon jamono bi loolu transfert la boo xam officiel na gannaaw loolu beneen transfert bu sotti mooy kii di Bamba Dieng Bamba Dieng kat kii di xibaar biral nañu ne dafay dem foofu nga xam ne mooy ca Lorient loolu mbir la moo xam ne moom bor voilà Lorient dañuy signé Bamba Dieng ñoo koy xaar nañu ci dina fa dem fanaani bu xëyee def li nga xam ne mooy visite médicale am daal di signé ak club boobule comme ni leen ko waxee rek terem moo fi bi nga xam ne moom di euh, olympique de marseille doon topp moo di euh, yombalal transfert la voilà kon weccoo la boo xam ne ay koppar da ciy topp comme ni leen ko waxee woon 14 millions plus 4 millions de bonus plus Bamba Dieng loolu aju ci transfert boobule Bamba Dieng day dem foofu la ca dégg nga Rennes euh, euh, Lorient voilà Lorient la comme ni leen ko waxee dina amal visite médicale am ni ki suba kayiti xibaar bi la nañu ne boobu it mbir la moo xam ne féetoo na côté déggoo am ci wàllu googule ki nga xam ne nag Alfred Gomis nekk gardien international sénégalais bi nga xam ne jamono yi mu ngi dund jafe-jafe foofu la ca stade Rennes moom am na club bu ko yóotu ci série A bu Italie muy Napoli loolu nag nekk transfert affaire boo xam bu amee jàpp naa ne dina neex ñu bari ndax kat Alfred Gomez bi ñu doore saison ba léegi minute Napoli ngeen toj li nga xam ne Serie A bu Italie waaye ñoom ñag ñoom nag seen gardien bi nga xam ne moom wax Meret jamono bi ñii di Tottenham dañu koy topp xam nga Tottenham jamono bi dañuy bëgg a ak ki nga mooy Hugo Lloris bi nga xam ne def ci dafa bari dañoo taxawal dañoo bëgg signé gardien wu Napoli boobu te ñoom Napoli séntu nañu ne bu amul chance dinañu ko ñàkk gis nañ Alfred Gomis dal. bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ngir mu di koy remplacer Alfred Gomis nag nekk na gardien boo xam xamne ku xam Abu A bu Italie yag na fa jouer na fa voilà bala mu fay di dem France gogulé légui nak ñom Napoli kon ñoo bëgg signé ki nga xamne moy Alfred gomes comme ne ko fani fan yi nak mom xam ngeen li def transfert yi bari wul motax mbiri day accélérer rek gis ngeen mbirum Famara Diédhiou kenn dégg ko fenn xey rek ñu na sotti na Bamba Dié demb ak tay lañ ci wax mu ngi tay nga Nicolas Jackson mu ngi non nenañu déggo amna digëntem ak Villarreal euh dem Villarreal ak Bournemouth mu wara dem fofu amal visite médicale mbiri kon dañ koy accélérer kon ñu sentu ne Alfred Gomis memitam, itam amana mbiram dina bokku ci yi nga xamne dina laqarté ko su ko modal mu dal di jouer ci li nga xamante ni saison bi waaye nag bu Napoli moom day gën a neexati ndax ren ji équipe bu taxaw la ñu yor ci Serie A bu Italie ko continuer di topp lépp lu ci rus dañ ci dellu si waat gannaaw loolu ki nga Luka Modric mom nak it xibaar dañoo biral ne jamono bi Al Nassr nee nañu moom la ñu bëgg Al Nassr day gannaaw Cristiano Ronaldo ñoom nee nañu Luka Modric la ñu bëgg nee nañu Modric su paree ñoom dinañu ko jox contrat wu ñaari at ak genn wàll bu pare léegi léegi ñu jox ko contrat wu ñaari at ak genn wàll saison bu nekk nag dinañ ko fay 40 millions d'euros wala sax lu ko ëpp bonus bi nag nee ñu ngi koy xeema 100 millions ba lu ko ëpp loolu yëpp nekk na mbir am ci saison bi voilà kon koppar yu takkoo takkoo mooy xaar Luka Modric foofu la ci Arabie Saoudite bu Real Madrid dem signé ak ñi di Al Nasr loolu mooy offre bi nga koy tek ci taabal ñu xaar ba xam fan la mbir moomu di mujj voilà kon gars loolu fi lu sonoon ci tënkom xibaar di leen wax Sen Sport the best sport news channel